gàmmu 2023 mbokk yi ñu ngi fii ci Tivaouane Tivaouane nag buñ ko waxee bokk na ci jàmbaaru Seydil Hadji Malick Sy yi nga xamee ni dootuñu ko présenté ci réew mi mu am taxawaay lool ci ëtt Seydina Mouhamad waaye am taxawaay ci ëttab Serigne Babacar Sy mooy Abdoul Aziz Aly Ndiaye Abdoul Aziz Ndiaye nag xam ngeen di këram ñu bari ci ay mbokkam ay soppeem ay am di jàmmam dañ ciy faral di teew di li waral ñu teew ak koo xam ne rakk la ci moom ñu koy wax soxna euh, Khady ale Ndiaye soxna Khady euh, ñu ngi lay nuyu di la gërëm bu baax a baax ci occasion bi ñu may di la ndokkeel aussi euh, ci bis bi nga xamee ni ci la ñu nekk muy bisu gàmm waaw aouzu billaahi mina shaytaani rajiim ginnaaw bi yàlla jëm ci yonent tam suñu baay bu baax baay Alam Ndiaye yàlla na ko yàlla xare aljana fa mu jóge fa mu fi mu jóge euh, yàlla na ko gën a fi mu jot ci dara na oyof lépp moom la vraiment gàmmu deux mille vingt trois macha allah gàmmu bu ni ñu ko commencé ci bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ ko yeggalee ci alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax a baax. Euh, Aziz ñu bari ci ay xaritam ak ay am jàmmam ñëw ci kër gi ku ñëw ci kër gi gis dina gis ni mbooloo mu baree bari teew na fi ban yëg-yëg nga am ci ñi ñi nga xam ne tey ñëw nañu euh, gàmmu si wante tamit dalal ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Aly waaw ndax gàmmu moom buñ koy wax dañuy wax ni guddi yonent bi la. rawatina ñu nekk ay taaliba cheikh yu yar ñu ñu judd ci taaliba Seydi Aboubacar si sama papa jokk woon ci al dëkk Seydi Alaaji Malick bi Abdou Aziz lu mu miin la ndax Abdou Aziz yaakaar naa bi muy ànd ak sama papa di yóbbu ay nag boobu amul sax cinq ans di jàpp ci buumu nag bi kon li muy def da koo miin da cee juddu da cee yaru xoolam yaatu lu bokk ndey ak moo tax ku laa biir la Abdou kër gi lu mu fees doyul lu gan ñëw bu gàmm jotee ñun dañuy xam ne dafa am àll boo xamante ni ñun sax daf ñuy jaaxal lu mu ci def da koy xeeb Aziz bu gàmm jotee ñu ñun tuwaawoon am nañ presque fukki fan ci tey te bañ ko duggee ba léegi saa ñu yeewoo dañuy togg ay mbana bañ duggee tuwaawoon ba léegi yaakaar naa mënuñu xëy te yeewu togguñu juróomi mën a añ wala juróomi mën reer chaque jour mu yeew ay nag mm. macha allah def ay teraangaam def ay berndeem Abdou Aziz rëyul reewul manqué wul dara respect ku ma gis dana la accueillir tekki du sàmba àllaa lii muy def Tiwaawan ci ñun la ko njëkkee man barki démb laa joge umra te maag moom ñoo ànd ak jabaram Miss Ndiaye te yóbbu na ma màkk depuis 2015 te xale bu ndaw laa maa topp ci moom démb la ma yóbbu umra ba maa jógee mu sama ñaari doom yóbbu leen Dubaï vacances sama doom yi léegi léegi la leen jox ku sa valise du jasneer kooku du sàmba àllaa mm. ku mu bokkal ndey ak yóbbu na la màkk teral yaayam muy ko am kilifa bëgg ñëpp kon ñun li muy def dañ ciy kontaan ñu ñun gàmm su musaana jot dañuy solu di simmee teg suñ ay valise waaye fi ngeen ñu fekk moment bii première gàmm bañ juddoo ba léegi sama papa wutal tey lañ musa am ndax ñun ba ñu ñëw Tiwaawan dañ ñuy boor ñu ay xale yu ndaw ñu tàmmal ñu Tiwaawan kon boo leen ñu fekkee ñu sol lii ngeen xam ne dañoo jóge ci naqar sama papa bu léegi sama yaay sax simmeekul quatre mois neuf jours lay door a am tey kon lii rek moo jaar ñu futteeku sol ay yére yu oyof yàppale Abdou Aziz ndax bu dee ay valise liñ fi indi ci ay yére mënuñu ko sol bu dee or liñ fi indi mënuñu ko takk bu dee dàll mënuñu ko sol waaye bànneex ak naqar mënul nekk bu tam papa génnee àdduna dañuy wàññi suñu degré bu baax a baax wan ni te Aziz dama nekk xaritu papa sama papa bëggoon ko lool ay bëgg sama lool ba gàmm jotee foog ñu takk bu ñu doon takk benn dañuy takk fukk ndax góor ga ca bari sàq tey jii lu ñu def ci gàmm ji fa mu tëdd dana kontaan ndax sama papa bi bëggoon gàmm nangoo sonn ci gàmm di ci daj nekk kon tey boo ñu fekkee ñu oyofe nii ñun mosuñu dugg ci waañ ndax ay dafa wax ni bëggum togguloo ma leen yàquloo ma leen defloo ma leen dara ay traiteur am la jël ñu net waaye la jël di ci fay dépensé xaalis toog leen di solo si meer waaye ak ñun amuñu alal buñ koy jox waaye ñu jox suñu doole jàppale ko ak yéen ko ay ganam recevoir ko ay ganam berneel ay ganam parce que loolu moo woon te kër gii këru taalibe la mm. wallahi azim xaaj bi fi dal ñun xamuñu leen te lu ñu kenn faye làmp kilim yi fu nekk vingt ko heures lay tàkk ay neewul kenn courant bi kenn ndox mi lu nit ñi gën a ñëw Abdou Aziz gën a kontaan d' accord alors soxna yaa ngi koy wax léegi euh, ñëpp xam nañu euh, Baye Alé Ndiaye li mu uffee woon nga wootam ni mu leen daan gunge rawatina ci li nga xam ne mooy gàmmu ren suñu boroom def mu nekk première année boo xam ni yéen a ngi gàmmu sans moom loolu ban yëg-yëg vraiment moom moom lay def ci yéen ak taxawaay bi nga xam ne amoon na ko. métti trop métti lool sax ndax sama baaba Tiwaawan ko bëggoon sama baaba Tiwaawan Moussa na ñëw dafay kontaan. dafa bëggoon tamit village bi mu jógee muy Nivass Lonkol bu mbokk mi daan jóge dëkk ba di gàddu seen saak su mbaa da daan reetaan ku mu gis da lay lëng ak yiir la teg leen vraiment Baye Alé daf def ci benn ñun vidéo boo xamante ni du bëgg sax félicité gan ñi di félicité wu waaye dañuy def rek ci li mu bëggoon ñu nekk waaye ku xam na ne ñàkk waajur fi metti rawatina waajur bu baax yàlla na yàlla xare ko aljan yàlla na dajeeg wasilaam ba Seydi Aboubacar Si al amin moom mbokk te am nañ ci yaakaar nag ndax bàyyi àlla taaliba Cheikh Pir baax la li aji di baax baax baax baax wala aji ndawul sama baax alors ban moment nga sentir ni euh, ki nga xam ne mooy suñu baay de Baye Allé euh, na leen ci wàccaayu gàmmu ji ak li nga xam ne mooy bisu gàmmu bi ñu déglu ban moment nga sentir ni vraiment taxawaay bii de buñ fi tolluwaan daan naa gis sama papa vraiment ak taxawaayam. bi ñu duggee ci kër gi rek la commencé ñu duggee gis ñu ko ndax ñun fi lañ ko naan fekk moom moo ñu doon jiitu beneen bi mooy bu Aziz daan yóbbu nag moom moo koy jiite bu Aziz di def teranga lu Aziz def da koy gën a encouragé sama papa ñu ngi njëkk a commencé di ko sentir mooy bi Aziz di def jumaay Tiwaawan bi Abdou Aziz ne dama am initiative yóbbu un milliard sama papa bi muy wax Aziz altine la ko defal vidéo ne ko Abdou Aziz ñaanal ko yàlla ni ko lu maam alima jigéen daan def benn def naa ko fukk lu ma def fukk def na ko téeméer te ñaanal yaakaar naa ñaanu wàlliwu du hasard te sama am naa ne am na ñaan ca yàlla waaw kon daal bayaale moom dañuy dëkk ci di ko ñaanal dañuy dëkk ñun dañ mën nañ sax camoufler benn instant waaye dañuy jékki-jékki après ku ne da am benn sentiment booy nga dugg sa biir nekk après nga génn. très am na ci leneen loo xam ni soxna Khady mënu ma la ko bañ a laaj. gàmmu euh, gi ren xam nga Sénégal du ñu bàyyi weer ci benn fan polémique bu Aziz Ndiaye takk na ñaareel ak demee noonu euh, du ñàkk nga am message boo jëmale ci Sénégalais yi nga xam ne vraiment parce que ñaareelu Aziz Ndiaye def nañu ko polémique ba kenn ku nekk aussi di ci am xalaat. waaw yooyu moom ma ci débat ma ci wax. Abdou Aziz daal waxu gàmm la ñuy wax waxu gàmm moom suñu mag la suñu kilifa la te nag suñu mag moom suñu mag rek lay mën a nekk ndax moom suñu kilifa te ñun nag dañoo jóge bay tere ñëw gàmm si bàyyi suñu borom kër ànd ak sama doom ñëw sant sama borom kër bu baax parce que moom moo ma bàyyi ba ma mën a ñëw waajal ma ba ma mën a ñëw daggal ma billet defal ma lépp ma ñëw ko gàmm si bàyyi ko muy liggéey te mënoon na ni ma da ngay toog parce que man chaque at damay ñëw te barki démb bu sama papa nelawee daf ma accompagné ñëw nekk man 15 jours dellu defal ma lépp même pas 3 mois ma daggaat bi ñëw pour gàmmu si muy def sama bànni muy Mbaye Ndiaye ma di ko sant bu baax di ko gërëm di ko wax ni yàlla na ko yàlla yokku teraanga ak su njaboot di ñu yàlla ko wal sàmm ko aar ci darajo yonent bu tedd bi si barke Sëriñ Babacar suñu sœur yi suñu rakk yi suñu mag yi ñëpp jàpp nañ ci bés bi ñëpp jàpp nañ ci bés bi ndaxte mbooloo mooy doole accompagné nañ ñëpp nekk nañ wenn say nekk nañ benn njabootu bay ale kenn mënu leen xam ne ñëpp bëggante ñëpp a téye yàlla na yàlla dolli jàmm suñu waajur yi mm-hmm. yàlla guddal seen fan te may leen wér loolu daf la ñuy ñaan yàlla na yàlla dolli jàmm jërëjëf waa salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum naa ne kenn ku ci nekk xam nga lan moo tax mu tew fii association One Team One yi ay lingeer yoo xamante ni dañu boole seen doole mu doon benn naa ni kenn ku ci nekk xam nga li ci social te kenn ku ci nekk xam nga lan moo tax kenn ku ci nekk boole sa doole loolu moo tax mu toog fii am na présidente boo xamante ni mu ngi fii vice présidente mu ngi fii donc dañ doon def juste entrée nuyoo présenté bureau bi ñu bàyyi sama secrétaire général moom ma dugg ci bi